jugal te sant ko nag nantu naa si yow rek yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën si yonent bi ana soo fa yonent bi li ma leer mu leer nga jàpp yonent bi jox naa la sama xol ba boole sama ruux nangul ma yaa gën ci man yonent ba feeñ naa fi ma yow tonight. àll joo. li ma leen ku leen nga jàpp yeneen ti bi. mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëgge bu baax a baax am mbégte contentement jàkkaarloo yéen fii di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ba mën a jàkkaarloo waat ak yéen ndax naka di démb am nañu fi nekkoon te tey suñu borom jëli na leen fi te def luñ suñu borom dara luñ may faroo mën a bàyyi nag waaye comme moo leen jëlee ma ñaan ma leen di may ngeen sant may doole ngeen a xarab may waaye kon nañ saxoo ñaan te xam ne jullit amul may ñaan di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin olof ñaay da ngay teetaan en même temps li fi chaque vendredi incha allah rabbi di ngeen koy am waaw moo tax rek xam nga ñu génn noonu rek ndeysaan ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ni Sénégal bu ñu dee 100 pour cent 90 pour cent yëpp ay musulman lañ xam nga ñu génn ci yére olof bi tamit nag rek dëgg neew ah sama xale sama doom yaay jàpp ci combat ba bari doole sama doomu nday moo jaar fii de kan jàll jëri borom maam limaane maa ngi lay bëggee di la kontaane bu baax a baax di wax ne olof Njaay nee naa ne ñoo teel a force benn bët lu ne ñaar ko dàq su ko defee dañu ambiance ak yéen 30 euh, 30 minutes yi jeexee rek ñu ñëw ak yéen ci thème bi nga xamante ni tey ndeysaan moom moo waral ndeysaan ñu jàkkaarloo ñu fii ci Leewtoo TV di wax ne ndeysaan olof day nee na këcc bu dëkkul dikk mbaa muy doon nekk jégalu bu baax a baax nekk jeune waroon ngeen am dëkk gi noo ko dundee mais émission bi bu bees tàq la mi ngi ànd ak yéen minutes yu jeex ndax kenn ku ci ne xam nañu tey la ci jéglu waa dañ leen wax baal leen ak baal naa leen danañ yàlla boole baal nga yàgg fekk ay àjjuma yu bari bari xam nga bu ci waay ñaan rek muy tijaan bi bu ñaan murit bi bu ñaan na xaadir bi dugg ñaan na ah ñaseen bi dugg ñaan na pour fas ko fari dëgg neeku ku ma dugg rek ñu ànd ambiance Sénégal benn bopp la lo faal barje faal tubaal bi rey rey jumaa ji

may na ndax la gaaña bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox kon jugal te santu ko nag santu ko may na la sax may la la gaaña bëggoon bi yow la ko jox billaay jugal te santu ko nag sëriñ bi may la sax may na la gaaña bëggoon ne bi yow la ko jox kon jugal te santu ko santu ko may la sax may la la digle booba la lay dimbale jugal te sant ko na sant ko bi may na la sax may na la la gaañ ba toone sëñ bi yow la ko sëñ bee jo ba nga dawee ni ko daan ah. ëpp wëttir ba di daw ca nga rawee ku ne jun sa daw ya mooy sunu raw kon jugal te sant ko na sant ko bi may na la sax may na la la gaañ ba toone sëñ bee jo isma jub la ko wax ah. te xam nga kër gol nga fekk ma fa tukki booba day jëli ndam kon jógal te sant ko na ee eh, ni may naa la te la woo eh, ni kasu ataaya ba sax ee eh, ko jëlee di ko jox ba teewul nde yow la ko jox kon jógal te sant ko na sant may naa may naa bana zan tuko ki maina zan maina la la da ni bogo ne zan jujun ku foi jarino mani ku jarino jarin filak kai nyum jarino Thank you. billahi rek jariñoo kon jógal te sant ko na sant ko fi may na la sax may na la la gaa ñu bëggoon dee sëñ bi yow la ko ñoo billahi ni cant ay wanew jëkke wax nanu wax gaañi wax leen wax na nga jëf na nga wax lii la yàlla xamal ni cel la ji donte cat la ci kon de cat la li gën ni wax di yokk bu dee cat bi lay nan ñu catu wax di yokk bu dee cat jam to agu one taxal toog bi laay gërëmal mani bu leen gërëm ki taxal toog bi laay gërëmal sëriñ becoo xamb taal bi ba jinde waña sëriñ becoo xamb sant ko mi may na la sax may na lax la gaañu dogoone sëñ bi yow la ko jox billaay gaañi jël ko defar laa ko nii su ma ci jógee yow la min sa pilim jéem a di lim waaw ciw këyin mu doon sa njariñ yaa keneen Ah, jëfam ñàkk xam lëndëm la ci nit kon xarit na nuy wut a xam bu nu xamee ba noppi jëfe soog di seet cosaan la am waaye yam ci dono li loolu moom taxul mën a dem doon xel de bu doon taxa daw mani la kon la fi am doon ni tool taxul mën kon xarit mu dal sa këram boo gëmee lamin li ma wax kaay nu ndam wuta am yoon wi am na ay pakk nag moo di Dakar bul ko faale rom ko dem bul yegit ni sax mi ngi baw fatte ko baway la mu am waju yor bonam di la khas bul ko tontu yak sa ndam tontu khas te kan manila moy tardel ku fi wuta dem waju teg lu ñaaw ci sa der de ko may toujours daga am kanayul waaja may na laa la mu am la mu la wax alal la ca moom ndaxte moom la am ca këram waaju lay sikkal ak a wut say toroxte ak sa tilim bul ko geesu yow bu ko wan sax ni yëg nga benn sëy si nag ni damay ànd ak damay wuti ndam ànd leen diisoo ci xalaat waaye ku man ca bañal waaju baax moom du ñetti maam yi da mel ni sëtu maam Cheikh Ibrahima faal faal da nga yaaram faal mi yàlla faale dëgg neexul ma ne la faat Fatim maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax Fatim Lo maa ngi lay kontaanee ba mu bari doole yaa ngi ci biir ñu toogaat benn sonn 30 minutes yi daal di jeex. ñun ñoo la bëgg toogaay bi yàgg na waaye fonk bi. su ko defee rek ñu daal di commencé ci li nga xamante ne rek moom mooy thème incha allah. بدراو دغه ګنا بند بند بند بالله نكاس أكثر سيدنا محمد أتقى الله وصله بالنواب صلى الله عليه وسلم وأني الله بذلك كم أقدرها فالشاعر ويقبل برسول يلون على المعالين في فتن عاش وقدر رشقين نتوى أصلحهم فهذا الخالي سيدنا محمد بسم الله ما leen ما xel ma wax leen الله dellu kër Seydina الله sallallahu alayhi nee nga yonent bi am na Aboubacrin bàyyi am ko mu am Omar mu am ko mu am Ousmane mu am ko est am ko. waaw su ko defee nag xam nga ñu nuyoowaat ziaraat bëggeewaat bu baax a baax wax waxaat du bare wax leeral say kàddu la chaque vendredi di ngeen am fii ci Leewtoo TV li nga xamante ne rek mooy ndeysaan ay cant ah xaadir yi dugg si laayeen yi dugg si ah tiijaan yi dugg si waa kër Baay Ñas dugg si. lamul fenn daal ay surprise yu doy waar mooy am fii ci Leyti TV waaw koy li olof ñaaneen xëccu bu dëkkul dikk mbaa mu yendoo tey bis bu ne damay bëgg a xëccoog yéen rek ba ko nii poñe ko dëgg neexut waaw kay Fatma ma loo man xam nga man fu mu toll nii loo ndaam ji sa sama yaay loola sant ndeysaan loo ndaam si rek xëccoog mbaa gay del ale loo ma ca ndaam borom ñetti tam siri maam yi baax nga nekk ndaam tabe nga nekk ndaam te yaat ca nekk ndaam taar nga nekk ndaam jom jaaj fu la jàng ndaam dëgg neexul su may wax ci yow damay mën a dem gratuitement sans réfléchir sama yaay loo la sant yow loo dundal rek ba sa loo dund doyut waaw dundal ba naan ji rappelle moi j'ai envie de partir dëgg neexul su ko defee rek daal di ci li nga xamante ne rek moom mooy te mu tay bi ndax démb dama leen a waroon a indil seen émission dëgg noo ko dundee su ko defee rek euh, tay li nga xamante ne war naa ko faa indi ñaari émission yi laa dajale nii waaw xanaa du maa bëgg na dal tay fi dëgg neexul mu pëtëx man ñi dégg xalé di fee ci kaw té mu tay bi du lenn lu may lu tax xale yi góor yi tey soo nee jigéen bëgg nga ko ngay lambi so mom bu mu jël lor nga bañ ko xelam gatt mu jël doom ja ray bu jëlé doom ja ray ñu tëj ko kasso yow nga continuer di dox ci mbéd mi lu tax loolu ci tém bobu bëgg na kenn ku ci nekk so mënta wote nga bind nga wax ci sa xel sa xala parce que nek na lo xamante ne may judd la ba ni ma juddo ni ma magge maa ngi màgget te xam ni inshallah rabbi yàlla na yeex fi la ko nar mu nek mbir mu doy war bo xamante tay damay taxaw nek avocat jigen ni nga xamante tay kambena kambe naa boo demoon buñ dee cent pour cent quatre vingt fa duggal mu nek mbir mu metti bo war nañ ci taxaw taxé témbé wax ñi ci wara waxal ndax lepp lo xamni ne nit mi ngi koy kaas wala nit bëgg mu siiw wala nit bëgg ngay jaay dara mu jar wala nga bëgg waxtane lo xamantani tay bëgg nga ci am solution bu baax mu jarri la fi ci ci TV lay xewé amul fenen san fandre di mom, suma leen di imi suma leen di indil émission damay ñew rek ñuy tiant rek di tiant rek ku dugg ñaan somb la neex ba keroog muy jeex mais dem dama leena na indil dugg siw ma temps bi nañ ma képp ma xoj ma ba mënumaa dugg si maa ngi koy jégalu bu baax moo tax tey ma jël 30 minutes yi bëgg koo waxtaane li nga xamante ne moom laa waroon waxtaane démb suñ borom may ma talak fekke ba ma mën a dugg si waat fii tey àjjuma bi waxtaan ak yéen ndax bi émission bu bees sàq la mais fi ma nekk nii bëgg naa kenn ku ci nekk 76 577 41 01 kenn ku ci nekk sa xelama xalaat ñoom fa la xalaatu keneen commencé amaana yéen ñi seetaan yéen a ma gën a xam mais suñ borom man la na too ma toog di wax mais imaginer ba mu mën lor bëgg la tax mu bay ci ëmb bi ndax fu mu kenn du kenn kenn do fatul ñi don jeex jeex ñi neur melo ñi tax tañax ak ñi dem bay laal su te laal ñu ko ak ñi bërëgu ñëpp yewu nañ fu mu mais góor nan la mëna a yow nga trompe jigeen at ni mu metti ëmb ni metti nga bañ tay suñ borom dogal ci bañ gogo nga bañ dom ji juddu xelam gatt ndax nit kat xaru na fi ndax lan lako xelama xalatam jox fala yam mu def ko loolu indil ko gàllankoor léegi ñaata nit ngay dégg dañoo xaru ndax lan amuñu kenn ku ñu waxal ku ñu partagé li nga xamante ni rek moo leen metti bu ñu bu bu ñu xëyee dégg seen bopp revue de presse ba tax na kenn ku ci nekk seen xelu bopp ngay wéyee Leewtoo TV nag ba mu ñëwee loolu lépp jeex na ku ci am lu la wala lu jël ma ci suuf dinañ ko waxtaane fii faram-fàcce ko yaatal ko nga xam ne lees mën a jariñoo lay doon ndax kenn ku ci nekk mën ngaa nax sa xel. mën ngaa nax nit ñi mais sa psychologique ak yàlla mënoo koo nax ba tax na tey lii mooy thème bi bëgg kenn ku ci ne génn ci xelitam xalaatam ñaata jigéen tey ñoo jur doom sànni ñaata jigéen ñoo jur doom te ca mbalit ma mu yendoo xiif yendooy mar sa yaram dawul ndax lan loolu la sa xel jox nit ki boo koy jugé dangay xool lan moo waral lii li ñu def du dëgg du yoon de jur doom nga sànni mbaa nga rey mbaa nga tëmbal géej baa nga gas ba mu xoot nga suul ñàkk am ku leen conseillé ak ku leen doole ndax rabbi sama waati dani lépp nit dama koo jël def ko ci nit nit di lor nit nit di gàllankoor nit waaye nag bi ma defee lépp ci li ma jël lépp ma jël ko def ko ci nit nit di jariñ nit di dimbali nit lii da cee bokk amaana tey ki ko def bu amoon ko mu waxal mu dooleel ko kàttanal ko xelal ko jàppale ko ki ko trompé tamit du ko seetaan benn yoon kon amaana loolu mën na koo def nit ki bu ñu xoolee li mu def ba ma juddoo ba tey xam-xam ne mosaguma gis ñu ne jigéen rey na doom wala sànni na wala def na nii wala yàq na ëmb ñu jël kaa ko góor ko tëj déedéet ku jigéen ka rek la ñuy tëj xam nañ ni góor jigéen dara bu weex la ak dara bu ñuul. waaye ga musiba bu ko jigéen ki def ba ñu taxaw tribunal war koo mën a juger war nañu war a mën a xam lan moo tax ndax tey góor bu demee ba trompé la nangu ko doo ko rey de gis naa ko fi ndax man damaa bëgg nett lu muuma du ne maa wax du ne maa wax du du du ne maa dégg danaan maa gis tubaab bëgg na c'est bien mais très bien da koy signé waaw très bien da koy signé instant bi war nañu taxaw loolu képp kuy jigéen nga xeex ko. ba nga xam ne loolu dafay jóge ndax loo xamante ni fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi te boobu ba léegi mi ngi am yéeme doy waar yeneen i gàllankoor di ci am jigéen ñi di ci tëdd ay kaso ñaata at yow ku góor ka la ko defoon ma ngay fel ma ngay fel filaal frisa yaramam sànnee ko def lu ko neex mais yow ku góor ki bi koy def est yow boo tëddee yow psychologiquement yow est ce que di nga nelaw boo dee gor mais dafa am ñoo xam ne duñ gor. ndax sa doq bu mu nee gàcc lu ñëw nga encaissé teg ko ci muy gën a duuf di rëy rek di ko mais am na yenn yoo xam ne nit su ko defee bu tëddee sa warul nelaw tey fu ñu tëjee góor dañoo war a tëj ku jigéen gi fu ñu tëjee ku jigéen gi dañoo war a tëj góor gi mais jigéen ñi rek la ñu tëj te amaana ka leen ko teg su nangu woon lii du am ndax tey buñ gisee problème boobu yépp li ko indi. moy bo xolé fa mu sosoo mooy ku gor gi ndax dangay torompi ku jigen gi mu ñëw wax la ko nga ni ko du man ñu genn ko seen kër xaritam fat ko wala mu nekk ci ay problème yu metti xalé bi bu juddo du ko bëgg sax tek ndax papam lam lam ko wonon atna mu doxale ak mom amna mbokk mi wote Halo. Halo, assalamualaikum. علیکم وعلیکم <laughs> awa askan bi neex na tey ndeysaan merci beaucoup émission bi neex na mhm. bu fekkee digna bu baax dafa melni ni thème bi tay moy manam comme jigéen góor ëmb la ba pare bañ bañ ëmbali wala ah, ba pare ñu tëj la prison allahu akbar wallahi lazim góore des na mm-hmm. ndaxte góor boo gis rekk xamal ne ci jigéen nga jógee donc jigéen lu koy suturaal teral ko teraangal ko defe naa loolu moo war a doon liggéeyu góor mais bu fekkee ne lu mel ni noonu jaar na seen diggante ba ëmb am ci ndaxte xale boobu juddoo doo xam sax lu muy jëriñ wallaay xam kenn xamul ëllëg lu lu àdduna di indi donc bàyyi xel dafa baax torop te nit nag amuloo dara lu dul sa ngor loolu boo ko ñàkkee rek ñàkk nga lépp rawatina nag ci góor donc dañuy ñaax suñu suñu góor ñi rek li ñu yërëm yërëm ñu suturaal ñu ndaxte ñu loolu rek la ñu soxla ci ñoom jigéen dafa niiw doole bu demee bu war la mun a jox boppam kon day fekk ni xam nga jaral nga ko lu lu bëri kon defe naa bu ñuy xool foofu noonu rek duñu rëy mais ma bàyyi ñeneen ñu dugg dama bëggoon na dugg rek participer ah ñoo ngi rafetlu say kàddu bu baaxa baax diko wëral di cam contentement mbir bu mbir bu baaxa baaxa baax koku moy borom Leewtoo TV borom America borom Senegal, from Gambia mi ngi noonu xale kat baay ngi nonu xale bi nga xam xaar bu baax da xare ba baax wala sax dama nan ko poussel ma ñew fo dégg ñu nan diw da baax da baax la gën dafa nekkul ndax la gën moy gën da la gën dar mënu ko gën da la gën moy gën moy gën ba faaw yow nga gën amal bu baax baax di xaar keneen rek ku dugg ci participer ci li nga xamanteni ni rek tay dañ ko fi waxtane goor tromper la ba pare ndaysan ëmbal la dal di koy bañ ba tax tay nga am doom nga sànni ko wala nga ray ko wala nga tëmbal ko geej wala nga gas bu mu nga sul ko gis nañ ko fi du benn du ñaar ndax lan cause bo buñ ko xolé lan moko waral moy ku goor ki dafa bañ ndax gis nañ fi ñu bari yor seen doom ndax lan ku goor ki moko nang mom nga bëgg ba nga gis doomam mu nekk sa amour nekk lo danga koo bëgg amaana boo amee doom sax dalay takk loolu lépp ngor moo koy lal waaye xam nga ni comme ndeysaan li di li bàpp la wax jigéen bu la demee ba jox la boppam bu dalaa bëgg mu dem ma ndogal fekk ko ci mu bëgg la bëgg gu sori mu ñëw wax la ko mbégte nga fubal ko ni ko ca xaj du man won ko ginnaaw mu dem seen kër ñu génne ko fu jëm xaritam ba mu yaakaar dem fa ñetti fan mu commencé koo tànc bu demee kër bàjjanam bu xëy dégg ñuy wax wax ju sew mbir mi di ko rongé fu mu dem ñu ne ko fii fanaan ci mbaaru xar sax da koy gënal kër mbokkam ma wala kër xaritam ba façon yi sew yañ ko fay def comme li ndeysaan diva wax ñu ñaaxaat xale góor yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ndeysaan ah suñu jëkkër waay laxti majaw majaw xool kura majaw majaw xool dëgg neexul nii nga mën a mel ba mën ne da ngay tooñ taalibe sëriñ Bamba bi doxal ba tey rek ñoo ngi leen di xaar ci 76 577 41 01 ku ñu woo appel normal mais ba la ñu woowee rek leen jël ngeen participer ci li nga xamante ni tey rek ñu ngi koy waxtaanee muy lan muy jur doom sànni jur doom sànni nag cause ba koy waral mooy lan góor da lay trompé ba pare bañ imaginel yow ñu tëj jigéen ñaata at ndax yow nga nek ci mbedd mi di taxawal di xàpp sa paradise di japp sa bu neex continue di fel felaay am sa yenen gel am sa yenen sanan sent di dox sa dox te kenn dula la arrêté ku jigen ga booleen nakaram wax ju ñaaw dañ koy tek ëmb bu metti bam mu ëmb wësin ba ñëw ba xanam war ci rot mune ne gis doom ji ndax ne nga ak mom mu kuttu sanni mbaa mu tekki buntu ben keur wala mu tëmbal ge ba mu sanni ca mbalit ndax lan xelam fa la tollu tay bu ñewon sesu ku melni awa bu ma ci ngunuma bokk ak di yedd diko delosi bu wasine boo buggul jël doom bi mu yob ko seur defur wat ba jek ta xamni ku lamb ya tay daagul fañ la nobe waye tay da avenir ñaar yoon ëmb wasin pare ñu yóbbu la ca prison ba ku góor ki continué moom di dox doxam seet si wu la laajte wu la lijjanti wu la lii may wax askan wee koy dund nee naa man duma wax loo xamante ne ndeysaan samay rêve lay doon wala may tiit di wax li nga xam ne askan wi dañ koy dund moom laa fi indi su ko defee ñu waxtaane ko waxtaan na dajale ci bàccal jariñoo mami kat maa ngi xaar nga dugg si bu baax a baax ndax damay rafetlu sa xel ak sa xalaat bu baax a baax ak bépp mbokk bo xamni ku ci melni ndaysan ndeysaan ma ngi sama goor Aliou Diallo sama doomu baye Diallo jéeri borom maamu Ilimani sama am duggu jakk moko ko teenoon bëgg na ngeen participer ci bu baax a baax amna ño xamni tay dañuy jur doom duñ ko reconnaître muy ko jigen ki de sanni doom bi duñ ko reconnaître ku goor am ak yow doom ba pare du reconnaître doom bi lank suñ borom dimbali la nak dooleel la nga jël doom ja doom je xey ba mag nga ni xoj damm sa loof jox ko ndong dem naan ko sekkali sekkalaat yàlla na ma yàlla baal waaye am na góor ñoo xam ne jaruñoo sax xam bay sëq ñoom yenn yi bay am ak ñoom doom am na góor ñoo xam ne amuñu benn war am na góor ñoo xam ne amuñu benn ngor am na góor ñoo xamante ni ma naan am na yenn góor yoo xam ne est am nañ xol au fond ce que am nañ xol jigéen ni ko yàlla màggale ni ko yàlla darajaalee ni ko yàlla fulaalee secret yi suñu borom def ci moom yépp xooloo ci moom lu may rek rendi jéggi comme ni ko xale yu góor yi di waxee kii moom li ma namm ci moom rek mooy rendi jéggi da ngay xelmati jigéen def ko li ngay def ba pare ni war a ñoon sa ginnaaw mel ni ko musul xam te ba ngay dugg ci moom yaa ngi ko je t'aime tu es ma raison bu ma la amul xaw ma fu ma jëm yaay sama gis taxe fekk la ngay wax gëmoo ca dara pour lan pour lan kulli na seen saay xatil mawti na la fekk ca anam yoo xamante ni na la neex bakkan noonu la ku ko def xarit pëtëx nga te boo pëtëxee dangay déy nañ ci bàyyi xel bu baax a baax tey loi bi li may wax sama xol laa koy tibbee loi bi mënoon naa war a mën a changer ba nga xamante ni tey jigéen ju gàtt xel ba def ko booy dem prison yaa ko góor ko yéenay dem mais ku jigéen ka la ñu jël ni rab bàyyi ko góor gi ci biti pour lan loi boobu du yoon dafay war a jóge dañ ko war a teggi lu lax loolu ki trompé ëmbal jàmbur ba pare bañ kooku lañu war a tëj ku góor kooku lañu war a tëj mais ku jigéen ku waruñu koo tëj am na leen fee cuub cuukeel nag xala koy mbalax waa mami kan boo commentaire dina ma neex kan jàllo jéeri borom maamu ilimaan yi sama mag jooju nga xamante ne maa sës ci yow rek tërëxoo ma benn yoon jëlal si nga génn ak man lii ku soxor mënu ko ku iñaan mënu ko kuy dem bay bëgg a bon te mënoo ko li ku xare ba baax moo koy mën dëgg neexul yow na laa sa jaamu yàgg yaa ma tey def yaramu neen de di wax ne encore une fois rek ñu demaat ci thème bi bëgg na commentaire yi kenn ku ci ne génn ci sa xelal sa xalaat ndax tey am na mbokk mu toog moo xamante ni tey ma nga bëgg a diis naan bu bu doom ji di juddu ma koy sànni bu doom ji di juddu ma koy rey mais après li ne ci ginnaaw loolu xalaatu ko sax ñaata jigéen lañ fi torompe ñu ëmb ñu dindi ko ndax lan ku góor kee bañ tey ñu taxabal leen tribunal juge leen tëj ku jigéen pour lan dëkk yoon lañu wax nañu doxal yoon loi bi dañ koo war a tëral parce que lu dul dëgg du yoon dañ ko fee war a tegg fu ñu tëjee ku jigéen gi war nañ faa mën a tëj ku góor gi ndax tey bu ñu taxawoon boo ko laajee daraan kat awma fu ma jëm xale bi mënuma koo yor yoruma dara néew di doole laa te ki ma trompé dafa bañ ëmb bi metti na ci man ma denc naqar goo xamante ne xale bu juddoo bëgguma ko sax gis ndax waji lim ma def ki dama war ki lama waxate won ak man at lamu def du ben? amana yow mi ko def bay way na mbuus bo nang won du ko def kon nañu delo ci xel xalaade ta yi reene de ndeysaan am na mbokk muy woote mais mënu koo jël oh ay waay mënu koo jël ñu bàyyi xel bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ni tey indi naa ko fi mu nekk lu doy waar nga xamante bis bu ne ñu dégg ko fi bis bu ne ñu gis ko fi te cause bi yépp boo xoolee góor ñee koy indi nekkuma jigéen tax may dal seen kaw de ni ma ñëwee ci yéen tey bol gëtee dinaa ñëw ci jigéen ñi noonu nday seex la waye nak li nga xamantani jigen ni ñi ñu koy dund campagnat ndax lan gor ñee leen ko tek ndax yeen mëno leen dem sa ñun ñu dem sa yeen waye ngeen xol tamit bu baax lepp lo leen di def ak ñun nak ngeen sédd ci suñu borom jigen dañ koy sargal dañ koy suturaal dañ koy magal dañ koy jaal dañ koy sagal dañ koy sago dañ koy titero dañ koy ndamoo jigéen dañu koy reewal dañu koy fuuyal dañu koy dañ dañu koy darajaal ba nga xamante ne ndax suñu boroom loolu la digle Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam bu demee bay ci ngoom jabaram ñu ne ñun ay jullit lañ te boo xoolee am na yenn góor ak ña ma ko war a wax defuñu dara loo xamante ni rek dëppoon nag li nga xamante ni rek jukkoy jullit la defuñu dara loo xamante ni rek. méngoog nak li tax ñu nan nit ak defu ñu dara lo xamantani ni nak li ñaan nit ak yërmande méngoog nak dara li ñaan nit ak ngoram méngoo wala dara lo xamantani rek ñu ko nan nit ak bëgg-bëggam nit war nga xam fi nga jige fi nga toll fi nga wara jëm nit war nga am ngor war nga am jom war nga am warma war ngaa bañ kenn koo xamante ne war na taxaw di la jam naa ne ndax am ak doom jigéen ba pare bañ ko tax mu jur sànni mbaa mu jur rey mbaa mu kut ñu tëj ko ci prison bale yow nga continuer di dund sa naan sens yow loolu bu la jigéen sax ñu xam ne mbër bi yàgg na fi nag mais dafa war a dañ dafa war a dañ ndax am na leen loo xam ne dafa ñaaw ku ko mën sax war koo war a mën a bañ a def waaye nag bu demee ba mun a tey fu ñu tëjee jigéen dañ faa war a tëj góor te bépp jigéen bu koy def tey soo amee doom sama xalaat bu gàtt bu ko kut bu ko rey bul sànni ci mbalit bul gas suul bul yóbbu géej yoral yoral defaruwaat ba jekk léegi nga gis góor gu la takk sa asagal

boo liggéey xam fa sa doom nekk nga koy nemmeeku ndax doole yemul mais bul gudd bul sànni bul tëmbal pour lan jigéen day gudd xel waaye gàtt xel mun wees nga am doom këlëmbal yaa ko bañ wala buggoo ko wala moom mu bañ wala bugg la wala bañ na ko mais boo wasinee yoral boo mun ta yor boo mun ta yóbbul kër sër mais bul kuttu pour lan kuttu gàtt xel daa mën a wees lool suñ borom neena xel bu dañuy ci ñun ay mala lañ rabbi samawaati borom bu reuy bi da ubb ko mi ngi gis lepp ci fepp ci ñépp kenn mënul def lu ko ump ci kenn nak lool nañ ci bàyyi xel bu baax baax kon nak di wax képp ko xamantani ndaysan yang koy def nang ko bàyyi di leen jox rendez-vous xamna dimanche ndax heure baangi waju jot bëgg nañ ñu continuer ci commentaire man ci kanam dina dugg ci commentaire xelee xalaat yi génn ba nga xam ne lees mën a jariñoo lay doon ndax amaana sax kàddu yi nga xam ne tey yëkkati naa ko fi mën na fee yem dootul amati ci kaw suuf bëgg na ngeen jàpp ci aimé bi partage bi bu baax a baax a baax a baax ndax kenn ku ci nekk rek mën ngaa jariñ sa morom ci kàddu yi nga xam ne tey yëkkati naa ko fi ci Leyti TV di wax ne ñoo ngi ñëw ak yéen ci yeneen émission ci yeneen thème ndeysaan incha allahu rabbi mais nag di leen wax ni leen xaar leen ñu dimanche ndeysaan seen awa show dina mel ni ci luy ba ruq boo làmm gën a tàng ñu tëmbal rek mag ñi dig xale yi daal di fay ci du na du du du yomb de bu naree yomb dañ koy bàyyi maa ngi ceeg ku ñu wax laysaan Lamine Mbaye ñu lal suñu basan teg suñu attaay daal di mbeeraay ak Leewtoo TV daal tout est possible di ngeen fi gis ay surprise yu bees yoo xamante ne amul fenn comme tey ni ñu def ak yéen da génn ci cant yi incha allahu rabbi képp koo xamante ne nag àndoon ngaa ñun ci live bi ñoo lay bu baax a baax dox di am na sama téléphone bi bëgg wax ak man mais nekk fii ngeen ma mën a woowee am ñu may wooy fii ba tey tamit muy dagg waaye nag di leen wax ne leen xëcc bu dëkkul dikk mbaa mu yendoo tey ñoo leen jox rendez-vous incha allahu rabbi suñu borom may seen aw bu ko kenn wute nag 5 heures pile dina mel ni ci luy ba xuq boo làmb gën a tàng incha allahu rabbi bye bye ciao ciao merci ngeen continuer commentaire bu baax.